<laughs> bien j'espère. on le fait en bul dugg si loolu. waaw ñaari kàddu la si loolu fan ngeen toll ci préparation match bi fan ngeen toll ci préparation bi fu mu nekk pour match gannaaw bi. yow dugg si wolof bi waaye. <laughs> pare ngeen yaakaar naa. si si pare nañ pare nañ amul pare nañ ñun kay <laughs> xoolal. damay loo ko làkk wala waaye boo leen boo leen ma bàyyi xel damay def erreur dégg nga. kenn nekk ok yéen a ngi fii gis naa leen yéen ñëpp non match bi kay waajal nañ ko comme nuñ ko war a donc. Euh,